فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها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 assalaamu aleykum assalaamu aleykum ma baad fa haada alyawmu yawmu al-iid likulli mu'minin muslimin muhsinin sa'iid فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات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 قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به المنتقى فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام معطي الصول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبداً فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثوابا ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أيها الناس اعبدوا ربكم ittaqi llaha xaytu kunt man kaana yuminu billahi walyawmi alaaxiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulu llahi sala allahu alayhi bi alihi wa saxbihi wa sallama wa baarak anna man taaba min ummatihi qabla mawtih fa innahu yashfacu fiihi cinda mumiiti maytih wa anna man lam yatub minhum tawbatan nasuuxa faqad amarahu man wacadahu nasixa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 الحمد لله الذي جعل جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة اللافاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم yowmu aklin wa shurbin wa itq bi fadli man jaada bi fatqi ratq fa man shakara allaha tabaraka wa taala fiih fa innahu yazfaru bi kulli ma min alxayri yastafiih fatlubu fiihi min allahi tabaraka wa taala xayra fa innahu tabaraka wa taala yasrifu ila gayrikum dayra wa tuubuu fiihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati alcisyaan فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله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 nangul na loola bañ ñoo nangul rek ñi nga xam ne nan lan ko defee waaye nangul na na nga xam ne moom la gëne loolu mooy li am solo ci bis bii kon nag bu bis waxtu wi ñëwee muy bisub Iidul Fitr bi kon war na noo sant suñu borom ndax bu ko neexoon kat dañuy digal daanak lu dëkkee koor te kon itam jullit bi engage te muy dëgg ci moom ko sañ def comme ne bu nga xam ne gàttalal nañu ko def ko weer rek nangul nu ko ba bis bii ñëw kon war nanoo jiital ak cant ko loolu daal mooy sant suñu borom bu baax a baax a baax di sant nag mbokk yi ñi fi teew mbokki taalibe yi lool di seetlu ci bis bii teewaay yu nga xam ne musu fee teew teewaayu mbooloo mi gis nañ ko bu baax a baax mooy ne wuy si nañ sëñ Muntaxa ci lim ñëwoon ci dikk bi woote dëkk bi xam la ne Kawlax gii kat day buntub sëñ Tuubaa da koo bëgg a def buntub sëñ Tuubaa ci Saalum gépp loolu itam day tàmbale waaye kon nit ñi itam feeñal nañ ko seen diggante moom kon nag noo ngi koy sant bu baax mu Mbàkke di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi di ko gën di jox ay xalaat di ko gën a àggalee liggéeyam yu naar yu rëy yii mu liggéey ci yoon di ko liggéey fépp di ko liggéeyal jullit yi di ko defal jullit yi mbokki taalibe jataay bi ni ma ko waxee seetlu nañ fi mbooloo mu nga xam ne daaw ñoo fi ñëwee loolu nag lu am solo la mooy ni ma waxee rek kon xam ngeen déglu ngeen message sëñ Muntaxa ba tax na ngeen jëm si fii fas yéene ànd ak nun ci julli gi waaye danañ ci ràññee nag kilifa yi nga xam ne ñoo fi daan toog te yokk ko laaj sëriñ naka jekk moo fi ne di ñëw waaye sëriñ bu tey jii alhamdulilah meeru dëkk bi ñëw na muy lu am solo du ko ci sant bu baax a baax mu xam ne ci dëkk bi la bokk moo taxit mu ñëw te daawu fi ñëw waaye xam na ne kon fii la këram nekk fii la ko waree mu ñëwee fi gouverneur da daan yónnee. waaye ñëwal na boppam kon seetlu naa ne mbooleem ñi nga xam ne dañ daan yónnee dañoo ñëwal seen bopp kon nag loolu lu am solo la ñoo ngi leen ci sant bu baax ci taxawaay di sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ne nekk nañ fii te yàlla dogal lii ci noonu kon nag sunu cant yàlla dañuy jiital ci lépp kon nag noo ngi gën a sant di ñaax taalibe yi nag xam ne na bis bii ni ma ko waxee woon rek bisu jaamu yàlla la bis yëpp bisi jaamu yàlla waaye weer wi ñu génne moo ci raw kon nag nan fas yéene waxtu wu ne muy fàttaliku loolu nekk ci jaamu yàlla googu xam ne ak jaamu yàlla moo nu fi sunu boroom danoo def pour nu di ko jaamu pour feeñal ko moom ci boppam ci jaamu yàlla googu ginnaaw bu mu feeñe adduna sëpp suñ borom da ci feeñal boppam kon nag bi mu nu defee nu gis loolu lépp gëm ko di ko jaamu kon nag nan xam ne jaamu googu mooy suñu mission lañuy jiital ci jaamu ga pour nu mën a continuer di ko def dañuy jiital ak ragal yàlla ak ragal yàlla day loo xam ne mooy sàmm jullit bi ndax yàlla nit ki jullit bi bu sàmmoon teeg suñu borom sàmmoon teeg ndigali sunu borom sàmmoon teeg tere sunu borom lu ma def sàmm boromam sàmm moromam ndax ci loolu lay sàmmanteeg moromam sàmmanteeg bakkanu boppam sàmmanteeg lépp lu nga xam ne sunu borom bind la ko kon ragal yàlla mooy cosaan nan jiital ragal yàlla ci lépp lu ñuy def ndax nu gën a mën a jaamu sunu borom. te itam ragal yàlla gi dañuy dimbale ni ma waxee léegi ba tax suñuy relation suñu diggante ci bopp danañ ko sellal danañ ko jaaree cam fa war a jaar danañ ko jaarale ci jub képp ku nga xam ne ab jullit la te jiital ragal yàlla sa bopp dana la aar ci lépp lu nga xam ne sunu borom dana ko tere kon nag lam lay lay la dëgg de mooy di la xiir ci topp sunu borom kon nag li am solo ci jullit bi muy fàttaliku ne jaamu sunu borom da ko war di jaamu ci ay ndigalam ci ay tereem loolu mooy ragal yàlla xelam di ci dem mu di ko jiital loolu mooy moo nuy sàmm mooy sàmm jullit bi digganteem ak boppam digganteem ak moroomam digganteem ak société bi digganteem ak environnement bi sax loolu la koy sàmm kon nag loolu nag xam ne mooy principe bi nga xam ne moom la mbooleem société musulmane yi war a jiital buñ ko jiitalee rek lépp dana jaar fu mu war a jaar te lenn du am tooñeel du am ndax suñu borom dana aye tooj jël yëf yi sa morom du am ndax suñu borom dana ko aye dara lu nga xam ne suñu borom dana koy aaye dana tax jullit bi gën koo sàmm loola nag <coughs> ni koy gën a defee rek ni koy gën a suuxatee mooy nekk ci ndigal yi suñu borom moo nuy àggale ci martaba boobu kon nag yàlla nañu ci yàlla àggale yàlla na yàlla taxaw jullit yi yàlla na yàlla boole xoli jullit yi te xam ne lislaam loolu mooy li nu boole li nu boole dafa am solo kon nag lu man di xew jullit bi war naa jiital moroomam jiital te te bu jiitalee taqwallah boobu ba doon wax dana jiital moroom mm-hmm. dana xam ne li mu war a àndeek moroomam yëpp mooy baatub ragal yàlla sàmmoon teg suñu borom loolee dañu daal di xiirtal ci nu nekk benn xam ne li ñuy wut benn la kon nag jullit yëpp dañu war a nekk benn te loolu mooy yoon te bu jullit yi nekkee benn jullit fu mu nekk te ragal yàlla dana fa mën a nekk képp ku fa nekk keneen ndax loolu mooy lislaam kon nag mooy sàmm societé bi na delluwaat ci suñu boroom te xam ne mënuloo def ci société bi lenn luy jariñ dëgg-dëgg te delluwaatuñ suñu borom loolu mooy mën a tax nu àndandoo ab société mu doon tax nit ñi ànduñ ginnaaw lislaam nu boole boole noo ñim ñim nu booleel ñëpp lislaam danoo danoo digal nu war a ànd ak ñoom ci yiw ci njekk ci teraanga loolu mooy lislaam kon nag sant danoo war a sant yàlla nun ñëpp yàlla defee ay jullit nu fas yéenee nag engagement boobu kenn ku ne jël sa digganteeg sa borom muy nekkub jullit gëm suñu borom fas yéenee def lim nag lépp lu nga xam ne digal na la ko nga engage ne da nga koy def fas yéene lépp lu nga xam ne sunu borom tere na ko nga bañ ne duma ko def loolee nan koy yeesal waxtu wu na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan xam ne sunu borom rek mënu nu fi moom rek lan war a jaamu moom it lañuy sukkandikoo ci lépp képp ku sukkandikoo ci leneen keneen ku dul sunu borom jum nga kon nag yàlla na yàlla dimbale ba nuy gën nekk ci noonu mu ko bëggee ba nuy gën a nekk engagement boobu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla di ñu dimbalee ban man caa nekk waxtu wu nekk loolu rek moo am solo kon nag bokki jullit yi bokki taalibe yi donc leen di gën a sant di ñaan yàlla boole waat nu fi ci taw feexi boppam nangul nu jaamu yàlla yii ba foofaate mm-hmm. ci nam gën a gën noo boole itam nu ànd xam ne ànd rek moo am solo mm-hmm. ci am réew ci ab ci ab jullit ndax jullit bi yàlla da ko digal mu ànd ak bopp moroomam waaye ànd ak ñëpp ñum bokkal société kon nag yàlla na yàlla gën a boole yàlla na yàlla taxawal yàlla na yàlla taxawu Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla defaat jàmm waxtu wu ne saa yu jaaxlee loolu war na noo gën a sant yàlla te xam ne sunu boroom def na fi loo xam ne nii ci xoli nit ñi ndax saa yu nit ñi jaaxee rek delluwaat ci seen i borom ci ñaan ngax bëgg jàmm mhm. te gis nañ ne yàlla waxtu wu ne mi ngi koy defal kon nag war nañoo gën a sant yàlla te itam xam ne ak ñaan danga war a nekk ca sabab sa nga xam ne moom koy amee mhm. mooy sabab yi jàmm loolu mooy teg gii ni ñaan bu nuy ñaan suñu borom jàmm ci réew mi mhm. dañoo war a nekk ca loola di ko dox di ko waxe di ko def loolu mooy suñu teggi ni ñaan digganteem ak suñu borom waaye fuñ masaa jaaxle buñ ñaanee suñu borom mu may nu ko naka jekk kon nag ñaanaat yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def ci réew mi ànd yàlla def ci réew mi juboo yàlla def ci ñoom xolub lislaam buy tàggale dëgg ak fet loolu rek am solo kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon na ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan na ñëpp seen loxo commissaire Ndorong adjoint bi ñëw na secrétaire chambre de commerce itam mi ngi ci peggu sëñ bi chambre de métier moom itam mi ngi ci euh, peggu sëñ bi ñoom ñëpp julli si nañ. Hmm. ok dafa sëñ bi dafa wax ne euh, alaaj seeni sekk mi nga xam ne mooy seen jëwrin fii di jëwrin sëñ Touba mi ngi fi ak euh, sëriñ bu mi nga xam ne mooy meeru dëkk bi ni mu ko waxee te nekk doom ci kër gi moom itam mi ngi nii ci peggam. commissaire Ndorong itam yabal na fi adjoint am monsieur Badji di kenn ci dëkk bi di kenn ci kër gi itam ñu séq liggéey yu bari gouverneur itam ñëw na ni ko sëriñ bi waxee secrétaire chambre de métier itam mi ngi fi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ñi ngi fi ak mbokki taalibe yëpp ni ko sëñ bi waxee kon sëñ bi nee na mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mi ngi leen di ñaanal itam yàlla dolli leen te yokku leen te musal leen te leen te aar leen te boole leen koog mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp kon na ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan bismillah